ci mois de juin deux mille vingt et un je demoon nañu fii ci grand théâtre def yëfu góor jigéen même bu ñu dul ay góor jigéen ñaari góor yuy tegante tuñ def nga yëfu góor jigéen waaw ñu ne góor jigéen nga waaye def nga yëfu góor jigéen alors ba loolu amee ñu daal di jëfee loolu suñu borom wax ne wama shahib na ilaa bi ma alib na mais le musulman ne doit témoigner que de ceux dont il est sûr de science certaine ñu euh, daal di fexe avant ñuy porter plainte am vidéo yi waaye am vidéo yi doyuñu dañoo des vidéos yoo xam ne dañ ko jël sous d'autres angles am na ñoo xam ne ñu ngi woon côté port ñi fa féete nii ñi nekk ci suuf euh, euh, pëjjëm bi ñoo am vidéo yëpp xool xoolaat li koy def dafa dafa dafa dafa leer naññi et eh, jël li ñu yoon may yoon la mu ñu may mooy dontale jotu la jàll ci télé yi yoon may nañu ñu jëfandikoo la loi 2008 11 du 25 janvier 2008 bi nga xam ne procureur la jox sañ-sañ bu fekkee am na un citoyen bu ko saisir ci loo xam ne dafay porter atteinte à nos bonnes mœurs di porter atteinte à la santé mentale et morale des enfants ak di fouler au pieds nos valeurs culturelles et religieuses procureur yoon may na ko mu jóg def liggéeyam alors ñun loolu la ñuy jëfandikoo jël extrait yi boole ko ci am lu ñu yónnee euh, parce que jotu télé yu bari jël nañ ko te mu am télé am na télé yu ko def en direct alors am lu ñu yónnee le gendarme de l'audiovisuel ki nga xam ne mooy saytu dérive yi am ci télé di CNRA Babacar Diagne jox ko euh, clé USB yi am euh, extrait vidéo acte bu ñaaw boobu boobule mm-hmm. am daal di def la même chose vis-à-vis du procureur temps yooyu sëñ Bassirou Gueye mm-hmm. sëñ Bassirou Gueye bi njombe bi di am mm-hmm. fekk ko fi dafa demoon umra ci diggante bi ñaar ñi def acte boobu mu am ci kenn ci ñoom soxnaam mu nga Euh, France. fa la nekkoon day jàng xamul lu mu fay def waaye fa la ne moo ma woo diw day sama boroom kër la euh, euh, moom xamoon naa ne lii na ci am nattu parce que fecc du affaire góor. Mm-hmm. ma di leen ñaan yéen Jamra ngeen rocci seen plainte ma ne ko soxna si li nga wax daw na yaram rawatina danga danga nekk ci wéradi mm-hmm. xel mën na ko dégg. ma ne ko waaye dafa am lu xew mu ne ma ci lan ma ne ko lii nga wax am na ñeneen ñu ma ko wax ba ñun ñu dem doon seeti euh, yoon pour retirer plainte bi waaye dafa am lu xew ci diggante bi mooy sa boroom kër bi ngay wax def benn sortie ci réseaux sociaux yi sol lunette yu ñuul ko naan ku ma waxati ay waxi dangay xaw ma lan danaa la yóbbu barzaq ma ne ko loolu euh, barzaq mooy àllaaxira Mhm. menace de mort menace ma ne ko looloo waral nag pour ne rien vous cacher Jamra retiré plainte mais procureur moo bañ ndax bi coow li di am fekk ko Sénégal moom sëñ Bassirou Gueye mhm. mu nga woon France mu nga woon pardon euh, euh, Arabie Saoudite di Umra mhm. noonu la écourté séjour am ñëw conduire affaire bi joxe ordre au commissaire Bara Sankhare ñu arrêté leen mu ne ah, moom day ma ne ko ah, ni defoon sol t-shirtu te jéggul coow li jeex ñoom bu ko defoon mu jeex waaye di défier défiewul Jamra sax ndax Jamra moomul l'article 318 et 324 du code pénal qui condamne l'attentat à la pudeur et l'outrage public aux bonnes mœurs waxul privé de public la wax parce que code pénal dafay xaw a raisonner un peu comme chariatul muhammadiya lépp lu citoyen lu citoyen bi def entre quatre murs yoonu kenn newu ci l'islam sax dafa xaraamal yëddu li tubaab di wax regarder par le trou de la serrure mais esplanade du grand théâtre fang fang la def xale yi di ko seetaan di reeka kax le danger mooy bu ñu bàyyi woon loolu jàll te sanction amul parce que am na sanction procureur fëgg na leen un mois de prison ferme bu ñu bàyyi woon loolu jàll xam nga qu'est-ce qui va se te xëy na yéen comme que seen site yi dafa am une portée internationale compatriotes ya nekk Allemagne li may wax xam nañ ko les homosexuels allemands bu ñu nekkee euh, di patienter ci arrêt car yi wala euh, les stations de métro en attendant seen seen car ñëw wala seen métro euh, bu ñuy nuyoo xam nga fii goos yi léeg ñuy kaf ah booy da nga def di dóorante mbagg yooyu comme rappeurs yi foofu homosexuel allemand yi góor a góor tuñ ak gémmiñ la ñuy nuyante dafa nekk une banalité kon lii bu ñu bàyyi woon mu jàll bu école tijjee xale yi eh booy gëj naa la gis jël tuñ teg si tuñu moroomu góor fóon ko duñu ko bàyyi mu jàll mu nekk buntu nag banaliser nguur jigéen naan ay eh, Jamra dafa rëy làmmiñ rek mais ndekete lii garawul gis nañ ñaari góor yu foonante ci bi dara fekku leen ci moo tax nag le procureur a frappé fort frappé wul fort pour bunta xataal kii ko ce soit mais acte bi la ñu condamné mais pas les personnes alors kon nag euh, lii ñoom Karim def Jamra ngi leen ciy félicité di ci félicité itam ki mu àndaloon def ko di Cheikh Oumar Diagne ndax dañ ko def pour aar tout tànk yi aar njaboot gi aar xale yi ndax bu ñu bàyyee mu jàll xam nga lan lay jur mm-hmm. loolu les techniciens Euh, euh, dans les cours de de, de communication digitale euh, ñoom ñu ngi ko tuddee l'influence subliminale de l'image c'est-à-dire bu ñu tàmmee di la wan ci image di ko jaarale ci ay kaf di ko jaarale ci ay sketch ak yi demee noonu comme la série réewu leen bi fi jaar te Jamra xeex leen rëq leen ñu arrêté nga xam ne dañu wane des jeunes acteurs yu def fond de teint rosa di regaju di dammi loxo xale yi di ko seetaan kex kex xool ko ni muy def bu dee ba nekk kaf l'influence subliminale de l'image mooy dafay dugg dans leur esprit comme une normalité dañu mujj naan Jamra ak Feeling Dakar ak kii euh, euh, Sénégal set kii ak euh, info yi dañu rey làmmeñ rek waaye góor jigéen aayul ñuy yàq suñu doom duñ ko nangu moo tax li Karim def ak Cheikh Oumar Jamra ngi leen ci encouragé di leen ci félicité il faut freiner